ma bu ma gisee li ma ne ñi dañoo ñàkk fayda ma xeexal parti politique boo xamante ne du ma am dërëm parti politique bu may xeexal man damay enquête ba pare pour wax la rek gis nga Abdoulaye Diouf Sarr bi ba ñu ñëwee ci janvier bi campagne yi commencé dama ne gars bu kenn liggéey nañ xaar gars yi wax man leen noo amuñu budget man leen amuñu ba ñu ne campagne yi samedi lay commencé vendredi ñun la ñu fayeeku suñu mois de janvier pare nañ yoolu ñu ñaar dërëm Cheikh Ba ba ñu jox ma pour ñu def ay reprendre ay maa ngi dem Dubaay mu dem Dubaay kañ lay ñëw mu ne ma le 22 lay ñëw ma xam ne le 22 su ñëwee le lendemain le 23 la ma bàyyi ba ñu liggéey une semaine ma envoyé ko message ma ne ko père instant yi li ma yoroon yëpp essence beeg nangam ba sama benn caméra sax keroog ci xeex yi la daanu yàqu te dañ ko war a defaraat mu boole ma ak doomam ma encaissé suma xaalis pare ci man ba may liggéey ak ñoom boobu encaissé naa ba toog parce que xam naa ni ku ci perte après doo fayeeku moo tax man leen man du perte ak politicien. xoolal date bi man la 14 janvier 14 janvier fekk jot naa sama xaalis pare ci su ma neexoon sax du ma continuer liggéey man nii laay liggéey ñoom de man lay gëmuma leen dama xam ne ni ko ci liggéeyal su pare du la fay xoolal gis nga audio ma envoyé